tey laa koy gën a fonk dootuma ci déglooti kenn man lu ma war a def ci waali dama koy def comme nii boo waree dem aéroport dem boo waree dem hôtelam dem xaaratuma kenn ci waali ci lu may wax man lu ma war a def ak waali dama koy gérer mais man dama kontaan ci ñagg ñi dagg seen i activité ma nekk ak ñoom aéroport ba ni waali di demee ñu ànd ak moom dem Sénégal ku ci mel na gab gis ma ñaaxarañ euh, loo métshop bisu ngóode Amadou Gaye 50 waaw Babacar Seck ak ay Rasoul ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla teg ci yoonu jàmm barki Serigne Babacar si kontaan naa jaaga yal na ko yàlla xaaree àjjana fa mu jëm yal na ko gënal fi mu jóge Wally Seck yàlla na ko yàlla dëgëral Wally Seck yàlla na ko yàlla dëgëral Wally Seck yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla ko yàlla dollu sutura may ko xolu muñ yàlla na ko yàlla may xolu muñ kii ku baax la kii wàll yu dëgg la ku dëgër la barki Serigne Babacar si nit ku dëgër la lu mu métti métti métti da koy gérer maa nekk moom tey ko biir jàng ko biti nit ku baax la yal yàlla def jàmm te teg leen ci yoonu jàmm journaliste yi ñuy ñaan ngeen toog seen kër journaliste yi toog leen seen kër journaliste yi toog leen seen kër toog leen sen kër ngir yàlla wasalaam. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi euh, maa ngi nii di doog a jógee aéroport waale laa gunge woon depuis sept di du matin ñi ngi fa waaw ñu toog ba ni muy embarqué maa ko gunge ba mu ba dugg ba ci biir. man man man ak moom mu mujj tàggatoo mu téye sama loxo bi ne ma jërëjëf Adama kontaan naa ci yow trop ku baax nga ma gunge leen ba nu dugg ñoom ñëpp maa ngi di doog a ñibbi journaliste sii ngir yàlla yonent bi ngeen toog seen kër. journaliste yi ngeen toog seen kër man sama wareef laa def li ma waroon ci waali moom laa def man du ma déglu kenn ci waali lu ma war a def rek dama koy def man waali rek a ma ñor te moom xam na man xam naa barki Serigne Babacar Sy depuis sept heures du matin ba tey ñoo nekk depuis sept heures du ba tey. man ak moom a nekk ba ni muy embarqué maa di ñibbi war na Serigne Babacar Sy waaw yal na yàlla xaare nday faatu jaaga àjjana euh, yokk ay leeram Wally Seck yàlla sàmm ko guddal fanam famille famille jaaga bi yëpp yàlla guddal seen fan kontaan naa trop waaw am naa mbégte ci Wally ndax ku baax la. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils nous en disant qu'ils vont venir en gang, qu'ils vont me Parce qu'ils insultent, ils disent que des influenceurs, on est tous sur les réseaux sociaux. Mais on est chez nous, ils nous disent de donner notre adresse. Quand ils savent notre adresse, ils vont que j'ai rien fait de mal pour Vous dire. Montré J'ai donné mon adresse sur les réseaux pour dire toute personne qui vient chez moi va voir parce que j'ai rien fait de mal. pour que euh, euh, je dis pas à mon adresse j'ai rien fait de mal. D'accord. Ouais, après ils sont sur les réseaux me dire oui, on est devant Ils ont fait quoi là Hein Ils ont fait quoi Bon, il y a quelqu'un qui était venu pour me dire vas-y parle doucement, je l'ai dit, il a fui. Le temps ma femme vous a appelé. Il a, il a même ramené un bâton avec lui. Non, on n'est pas blessé vraiment. Oui, le bâton. C'est quoi le bâton, le truc blanc là Ouais. OK.

l'adresse hein, sur internet, c'est pas salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñoo ko gisandoo Kaliphone Sall démb danoo Dakar ndayam ba mu woo police na faamam moo woo yi day dul de moom moo leen woo li tax mu ne faamam parce que amul document visa lañ ko may 15 jours la visa bi 4 mois day day euh, day day delluwaat Sénégal léegi sinon bu visa bi jeexee dootuñu bétti. moom lañ ko may yorul kayit moo tax mu woo leen léegi gars yi dama leen di laaj lii nii xew lan moo yoonu politique ba policiers yi ñëwee mu neen day def politique mais gars yi mais gars yi dañ koo bañ waa kër Ousmane Sonko yi xanaa moom la ko bëgg a xal du ñoom de kan yi la man mën a waxee ak man maa la ëpp jot li ma yor yoroo ko te man maa mën naa toll man toog fi ma toog ñuy daqaar sa ndey foo génn ñu toj sa ndax mën naa ko maa gën a bandi gën laa min pari ba ma la ko waxee yàgg na nga dëgër bopp déglu leen déglu leen nii nee na politique lay def déglu leen bu baax bii nii on fait la politique. Donc il y a des gens. La politique de quoi Du, Sénégal, c'est même pas, ici. Mais ils sont pas contents de moi. Moi, ils sont pas contents de moi, c'est le problème. je viens d'arriver, il a semaine passée, je viens d'arriver. Donc, euh, il me dit, euh, tu habites où On faire ça, on va faire ça. C'est pas comme ça aussi. Je reste chez moi, quelqu'un vient pour m'agresser, C'est ma femme qui vous a mais pas moi-même. S'ils ont quelque chose. lii da ko que intervenir chez moi. Après, ils font sur le lac. C'était hein? la première fois que vous le voyez. Hein? C'était la première fois que vous le voyez. Le gars, il habite en Allemagne. Il est sur les réseaux, il insulte tout le monde. Ah, mais il n'est même pas d'ici alors. Tout, euh, non, mais il est venu ici de il France. Il, oui, il est venu. C'est un, un, petit gars. Il insulte tout le monde. Il ressemble à quoi Après, il m'a euh, euh lancé un message. Il est sur les réseaux, donc il y a des photos de lui. Tout. Oui, oui, on a tout. Ma, ma... Il est venu ce matin, 6h du matin, hein, quand on dormait. Il ouais. a filmé la maison, Il a posté sur les réseaux en disant que oui, j'étais chez Kali. Il a fui, ma femme a filmé. il, il, habite euh, en Allemagne. C'est un gars qui insulte tout le les réseaux. Ah. Elle a, tout, elle a ses vidéos, elle a tout, elle est ici en France même. police la woo nee na ko maa France police nga yaakaar sa wax ju bëri yëpp Kali bàyyil ba lépp jàll parce que dafa am ci lu nekk yaa ma provoqué nag tooñ ma bàyyil ba lépp jàll bàyyeeguma la de déedéet bàyyeeguma la dinga nga ci nii wala ci naa wasalaam man la Adamo boss des négri te wan naa la ko baana